jaaxle jeex na solution judd na alaaji Sanjogu Mbeng soxay bu jóg taxawal boutique solution taxawal nag bala ngaa dem boutique solution ñetti jàngoro nag lay faj Sanjogu Mbeng yan jàngoro la mu ni ma néew kattan hémorroïde ak ndoxum siti ñoo ngi ceeg ay garab yu doy waar garab yoo xam ni fépp fu ñu fekk jàngoro toxal ko garab yaa efficace de yow mi am jafe-jafe sëy di teel a daanu wala sax sa sàkkara du dëgër dawal seet si boutique solution hémorroïde bii génn ak sax bii ci biir foo toog sa biir bi naan gur dawal seet si waa boutique solution ndoxum siti jaaxle jeex na envoyé sa xaalis jotatoo say garab jeex na envoye sa xaalis kenn dootu la jël téléphone jeex na envoyé xaalis ñu lay dawloo jeex na ak seen boutique solution dafa ñëw ngir régler situation yi mboolem réew moo mën di nekk defal sa commande garab yi daañu la fekk fa nga nekk ngeen mën a jokkoo ak boutique ci 78 426 66 77 mbokk yi jaaxle jeex na solution juddu na su ngeen bëggee dégg dëgg daal fii kese ngeen di wéree jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum seen boutique solution dikkati na Alaaji Sanjoogu Mbeng Sohaybu ñu gërëm leen bu baax a baax ci topp geeg bàyyi xel gi niñ koy defee ànd ak ci actualité ñëw ci li nga xam ni mooy li ñu tax a jóg ci boutique solution sangatuñu listixaaruñu joxewuñu bayra yokkuñu awra seetuñu itam ñetti jàngoro kàttan hémorroïde siti ci la ñuy dox actualité bi tey dina doon Youssou Ndour mi nga xam ni wala groupe Futurs Médias mi ñu jiiñoon ni dañuy sàcc ay programme jiiñ leen ni dañuy sàcc ay signal tey ñëwaat nañu benn journal wax ni dañuy sàcc courant naka la demee daan ci dikk ci kanam incha allah Wally Ballago sekk mi taxaw ak ay abokaam ni képp ku tuddati aw turam lënkale ko ak mbirum góor jigéen daan ñu la yóbbu ca kanamu procureur dinañ ci ñëw alaaji Sa Ndiogou Mbengue sony bu ñu ngi lay nuyu di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñu ngi ñuy topp saa su ne Euh, di rafetlu saa bu ñuy jàkkaarlook ñoom di am mbégte ak kontante euh, ci li nga xamante ni bii moom lañ ñu parce que dañ ñu maanaam wekk teg ñu foo xam ni loolu vraiment léeg-léeg da ngay toog ba ci yàgg sax dangay wax ne ba ah est-ce que war nga xool war nga xoolaat sa bopp est-ce que fi nga xam ni fa la la Sénégalais yi teg yegg nga fa mhm. loolu nag euh, ñu leen ci sant bu baax di leen ci gërëm mhm. di ñaan sunu borom mu bañ a tas yaakaar. Mhm. ba yaakaar bi nga xam ni moom ngeen am ci ñun. Mhm. ñu nit yéene bi ñu am ci yéen ñu mën koo mottali. Mhm. te bañ cee yëg sunu bopp bañ cee gis sunu bopp. loolu nekk loo xamante ni bi vraiment bu demee noonu ànd bi dina nekk ànd bu neex di këram ñëpp nag. di leen sant. di kontaan ci ñoom bu baax a baax a baax. waaw. aywa mi ngi noonu Sa tey ñu fa yéene nag waxtaane doore waxtaan wi ci li nga xam ne mooy. Euh, lii di liggéey bi Sa ndax bi ñu commencé ba léegi euh, leeral nañu leen ni leen ñun kat ay nit lañ yoo xam ne dañoo yàgg gis ay sénégalais yu ne ci biir réew mi ak biti réew di ñu booleek ay nit yu ñuy jëflanteel gannaaw ba nag ñu dugg ci wàll googu nga xam ne mooy diggante jënd garab ak jaay ci wàllum pajum olof. boobaak léegi nag lu jëm ci wàllu néew kàttan tey daan ci insister biñ ko commencé léegi léegi ji ubbi nañu suñu ay porte amul ku ñu seetiwul ci rajo ak télé xam ni nee nga mën ngaa faj émori euh, mën ngaa faj kàttan ba mu wér. tàllal nañ leen loxo ñenn ñi tàllal nañ leen loxo di leen déglu ba léegi tontuwaatuñ ñu ñenn ñi woo nañ leen waaye ñëwuñu ñi ci des it ubbil nañ leen suñu ay bunt pour képp koo xam ne alaaji man nga faj néew kàttan ba mu wér waaye ñu fàttali itamit ni keroog indi woon nañ fi benn boîte di benn sachet wax ni dafay eh, eh, faj jàngoro yu baree baree bari ba sénégalais yi duñu ko laaj mu mel ni tey dinañ jël siwaat ci boîte boobu bu baax a baax naka lañ ci war a dellusee ak naka lañ ci war a liggéey ak sénégalais yi mm-hmm. Mm-hmm. niñ ko waxee woon la plupart sénégalais yi euh, am na ñoo xam ne dañuy taxaw ne mën nañu faj néew kàttan ba mu wér lekk na ñax xaalisu sénégalais yu bari ci di leen jox garab yoo xam ni nit ki day naan ba tàyyi rek ba waaye boo seetee lëm ca doon wut du ko am day xaddi bàyyi loolu nag bokk ci li tax ñun bi ñu taxawee wax lancé ko tamit am na ñoo xam ni jéem nañ leen a nemmeeku pour ñu bu fekkente ni mën nañ loolu. Mm-hmm. am na ñoo xam ne bii daan nañ leen gis ñu wax ni mën nañ ko waaye sawaru ñoo liggéey ñun. Mm-hmm. parce que li tax. Mm-hmm. mooy am na loo xamante ni bii peut-être xam nañ ko ci ñun. ne liñ ñuy jox bu taxee ay tappale. non seulement. danañ ko xam parce que ñi ñu koy wax mooy ñi nga xamante ne bi ñoom la ñuy jox garab yi. Mhm. te buñ ñu ko waxee danañ leen weer ci penc mi. Mhm. peut-être ragal goo xam ni moom la ñu ragal moo tax nanguwuñoo collaborer ak ñun. Mhm. ci mbir moomu mais dañuy préférer. traité ak client bi directement. te ñu ngi ci rajo ak télé yi di wax ni dañ koy faj ba mu wér. donc loolu mooy li nga xam ni mooy li sabab mbir mi. parce que jàpp naa ni bu fekkente ni bi daw nit dafa ñëw ne la ah ñun de am nañ ay clients yu yittewoo loolu. mën nga loolu. je pense que ni te mu nekk dëgg ci yow. nga war a jaay say garab rek. je pense que ni war nga mën a wax ne ah man kat mën naa liggéey nag yéen. mais le fait que nanguwu ñoo liggéeyandoo ak ñun. donc looloo tax ñu xalaat ni peut dañoo wóoluwut seen bopp. mën nañu xalaat loolu. Hmm. waaw parce que xalaat ni ñaar ñii bu ma roofaloog ñoom. waaw bu ma roofaloog ñoom. sama faiblesse loolu lenn la ci peut-être tamit dañoo bañ a liggéeyandoog ñun rek peut-être ñoom ñu akimoo tamit marché boobu. Hmm. loolu tamit mën na ci am waaye daal man jàpp naa ni buntu la woon bu doon ubbeeku. bu hmm. fekkonte ni la ñuy wax dëgg la. que ni ñu gën a am ay clients parce que ñun wax dëgg fa yàlla. Euh, ci ñi nga xam ni tamit jox nañ ñu confiance wóoluñu. Mhm. ñi ci bëgg a ñun ci loolu bëgg tamit ñu am ku mel noonu bari na. Mhm. donc loolu mooy li nga xam ni moo ci ne. Mhm. donc nag mais nag du ñu tàyyi. di wër peut-être dinañ daje jeeg koo xam ni. non seulement dina ko man te it mu doon dëgg mu dina ko mën mu dëggu ci moom mhm. ba noppi mu jariñ sénégalais yu bari en mhm. tout duñ ci tàyyi waaye ba fi mu toll nii ñi ngi yor garab gi nga xam ni mooy comme ni nga koy waxee mooy sachet bi waa buy dimbali nit mhm. ci wàllu néegu sëyam uh-huh. mu mel ni am na sachet bu ñu fi indi woon keroog ah. uh, xam naa sax sama bos indi indaale ma ko tey dama ko bëggoon a wanaat sénégalais mu mel ni kooku ba léegi ñu ngi ak moom ci li ñu waxoon sénégalais yi muy fas yéene liggéey ak moom ginnaaw bi mu boolee yi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ko santaane woon jullit di ko jëfandikoo lu ci mel ni xabatu sawda mhm. lu ci mel ni lem lu ci mel ni junjeer ak lu ci mel ni xorom pole mhm. ak yeneen i mbir ci biir mhm. euh, mu mel ni kooku itamit garabam daañu ko dugal ci biir boutique solution ndax bari na lu muy faj waaw garabam nag boo essayé nañ ko parce que garab la goo xamante ni gi euh, euh, moom ci biir waxam sax expliqué woon nañ fi keroog bi ñuy expliqué ba wax ni en long terme dina mën na soigner néew kàttan ah. mais ñun mënuñu dëgg la parce que néew kàttan tamit mbir la moo xam ni euh, du nit ki mbiliñ mbàcc rek mu wér parce que neexul faj travail la boo xamante ne bi bu yàgg la waaye en tout cas li ñu gis ci garab gi dalandi na sunum xel que ni war na mën a yegg foofu parce que li tax mu dalandi sunum xel mhm. parce que dafa am yu bari yoo xamante ni bi mooy nekk ci nit Mm-hmm. luy tere mu mën a sëy sëy bu normal mm-hmm. am na ñoo xamante ni bi ay seere am na ñoo xamante ni bi tamit eh, ay kii mais gis nañ ni bi nga xamante bi da boo koy jël am na yu mm-hmm. bari yoo xam ni mi ngi koy da koy dindi ci yow yooyu muy dindi ci yow nag bu dajaloo bu demee nag ba nga xamante bi yàlla dogal na mu daadee dem ba dayo mën na am benn force boo xamante ni nit ki mën na ko am que loolu bokk na ci li tax ñu ne ah garab gii kat peut-être mën nañ liggéey na moom parce que comme niñ ko composé wan nañu ko gis nañ lépp ay pitikola la mhm. ay jar mu ngi mhm. ci am na jinjeer mhm. am na aussi lem abatu sawda ak yeneen yoo xamante ni bi yëpp ay produit naturels la yoo xamante ni bi nit ñi xam nañ produit yooyu yoo xamante ni bi vraiment moom la koy liggéeyee te itam wax dëgg fa yàlla li am solo mooy nit ki bu koy jël dana koy lekkloo di ngay xiif bu baax tey da nelaw te loolu rek lenn la mhm. ci lu mën a dimbali nit ki mhm. ci parce que nit ñi dañuy manqué stressé manqué nelaw yooyu yëpp mhm. ci luy provoqué impuissance sexuelle loolu ci la bokk donc am na ci yoo xamante ni bi vraiment moo tax loolu dalandi na sunum xel bañ ne ah kii kat war nañ ko mën a dugal ci marché bi pour sénégalais yi aussi tamit euh, jariñoo ko parce que vraiment garabam wax dëgg fa yàlla gis nañ ci loo xamante ni bi daal njariñaa ngi ci Euh, te li ma gën a neex ci garabam alaaji bi mu ñëwee bi ñu ko waxee dani nag moom mu mu wax ko ci teel garabam du dorog du loo xam ne da nga koy naan léegi mm-hmm. mu xabtal la nga dem seeg sox sa soxna mais boo ko dee jël dinga dem ba yëg ni yow mi kat yaa ngi am ay yëg-yëgu jigéen dina yokk sa kàttan comme ni nga ko waxee mm-hmm. euh, doo ko jël rek mu faj la mais nga continuer di ko jël di ko jël Mhm. mën na dem ba jox la puissance boo amul woon. waaw mën na la ko jox. waaw boo amul moom vraiment. Mhm. nekk na loo xamante ni bi daal je pense ni képp koo xamante ni kii def nga ci sa commande après. Mhm. ba jël ko di ko jël comme ni nga xam ne noonu la ko waxee parce que nee la deux premiers jours yi da nga koy jël trois fois par jour. maanaam te li nga ciy jël. donc sachet bi boo ko jëndee mën na yàgg ci yow. non mën na yàgg parce que li tax mu mën a yàgg ci yow. kuddu café bu digg la wax tuuti nga ci jël boo ndekkee boo añee boo reeree deux premiers jours yi après da nga koy mmh. jël. Mmh. boo ndekkee ak boo reeree. saa yoo ko jëlee naan boo lekkee ba pare nga jël ko naan sa ndox vraiment nee na après noonu rek nga koy jëlee. en long terme bon vraiment mhm. que ni boo xam naa di ngeen ci découvrir bi di ngeen ñu joxaat après mhm. am na ku ko koo xam ne ku ma xam la jël na ko moom danaan am alaaji lu mat fukki fan du dem mm, toilette waaye nee na bi mu ko dalee jël ak léegi toujours mu dem ca wanaaw waaw loolu moom loolu moom waaw loolu loolu confirmation la ci boo xam ne daana am fukki fan wax dëgg du dem toilette waaw dëgg fa yàlla loolu moom confirmation la boo xamante ne bii moom mm. moo ko jël moo ñu ko wax te it loolu nekk loo xamante ni bii tamit suñu jege ñaale la. Mhm. boo xamante ni bii. ku ñu xam la vraiment ku ñu xam la. Mhm. et tamit dëggal na loolu ci ginnaaw bi nga xam ne mi ngi ko doon jël. d' accord bala ñoo dem ci euh, actualité bi di wax rek ñoo ngi tàllalaat bépp sénégalais boo xam ne yaa ngi ci biir réew mi te mën a faj néew kàttan. Mhm. am nga am nga xam-xam bi pour faj waaye amoo sensu génn ci comme ni ñu koy amee soo lëkkaloo ak ñun ba mu wér. am nañ ay nit yoo xam ne loolu mën naa ko dinañ la booleeg ñoom nga jox leen ñu commencé bu ko defee ñu daal di dugg ci euh, loolu beneen beet bitim réew keroog dama dégg ay mbokk yu la doon woo di wax ni dañoo bëgg lëkkaloo ak boutique solution liggéey mm-hmm. euh, moo xam ay daayira la wala ay ay association yu nekk ci bitim réew mm-hmm. euh, loolu bëggoon naa la ci laaj itamit loolu yan yan projet la nar a doon ndax boutique bi dafa lëkkaloog ay nit yu ne bitim réew wala waa xam nga vraiment ñu ngi gërëm sénégalais yëpp ah parce que partout dans le monde dañuy woo sony bu mm-hmm. mais xam nga am na ñoo xamante ne bii xam nga parents ay nit ñi ñoom ñooy gën a tax sax nga yenn ñooy ubbi see bopp ci yenn yi. Mhm. parce que dafa am ñoo xamante ni bii koo xam ne dafa woote. mu wax ne moom de dafa nekk koo xamante ni ki dafa nekk ci bërëb te daf dañu fa yor seeni i daayira yooyu. Mhm. mu ne mais gis nañu wóolu nañu. Mhm. mu ne vraiment moom te ni nga xamante ni noonu la Modou yi di yónnee GP yeeg yooyu. nan lañ mën a def ñun pour ñu liggéeyandoo ak ñoom mhm. ma ne bon bi ñu waxee loolu nag bon ñu ne bon comme que loolu euh, buntu la boo xamante ni bi am na ñoo xam ne gi am nañ gis-gis boobu quoi pas ñun tamit ñu aventurer wu ci côté boobu mhm. donc loolu ñu ngi ciy xalaat d'accord ñu ngi ciy xalaat pour xool nu ñu mën a def mhm. pour mën a liggéeyandoog ñi nga xamante ne bi tamit ay kii lañ yu nekk foofu parce que la plupart commandes yi ëpp vraiment euh, ci biir réew mi bëri na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi commande mais tamit aussi tamit li lay wan ne la tamit bon diaspora bi tamit. ñu ci bëri wax dëgg fa yàlla ñoo xamante ni fu ne la ñu man damay wax ne bon lii est-ce que yeexuñu ko sax def. Mhm. parce que depuis que ñu démarré ko ba nëgë ni wax dëgg fa yàlla. Mhm. Euh, doon donte nag fi mu toll nii noppalu moom mënatuñu ko moom. moom wax dëgg fa yàlla. ni nga xamante bi pour di leen jox <laughs> ñi nga xam ne mooy marchandise bi <laughs> ñoom it ñu koy jaay <laughs> ñoomit bu ko defee nga xam ne danañ ca mën a am dara bon tamit mu nekk loo xamante ni bi eh, ñëpp danañ ci gañe client bay jënd tamit nga xam ne am na yu bari danañ ko ko teggil mhm. ay gp baak di ak yooyu yëpp dina am yu bari yoo xam ne dana ci wàññeeku mhm. donc loolu la daal d'accord ñu xool comment faire pour eh, travail ak gars yi am na solo kon ñoo ngi dégg euh, jégalu mbokk yi nga xam ne nag rupture amoon na ci weekend bile ñi nga xam ne ñu yónnee woon seen xaalis sa war a jot seen garab wax naa leen ba àdduna tukki du ngeen ma sa yónnee seen xaalis ci boutique bi ngeen ni yónnee nañ suñu xaalis waaye mënatuñoo jot waa boutique ba retard bi amoon nag euh, suñu jigéen lañ doon takk ma jigéen Diop ñu nekkoon ci weekend bi diggante samedi ak dimanche loolu moo am taxoon rupture am alaaji bala ñu dugg ci actualité yi euh, looy dolli ci yëf yi. waaw xanaa di santaat sénégalais yi rek. di hmm. leen gërëm teyit ñu am sooy bu loo xam ni parce que da ngay gis koo xam ni pareen saa yi day discuter yow pareegut sax envoyé na xaalis. <laughs> waaw moom kay. xam nga te euh. loolu il faut que nga discuter ak tamit ba mu yëg ni. ba ngeen toll ci envoi nga xam ne dina mën a suivre yenn yi. mais am na ñoo xamante ni bi dañuy tëb tëb rek. daal di man dañuy mujj di ma ko dugalal sama téléphone. wala beneen téléphone. waaw tey benn numéro bi nga xam ne moom la son yor foofu ngeen koy envoyé kuy envoyé fa nga koy envoyé. Mhm. te moom après képp ku kii tamit dina la wax ne la dugal ko fii mais da ngay gis ba leen saa yi dugal dugal nañ ko sax bu dugal ko ci numéro bi nga xam ne <laughs> <laughs> koo xamante ne kii fa la xam nga loolu yëpp ay kii la yoo xam ne il fallait que tamit aussi ñu xool bu baax mi nga xamante bi noonu la ñuy defee mbir yi daal am na solo jàngeen jëf kon mbokk mi ngi noonu gërëm ko bu baax moom alaaji Sanjoogu Mbeng numéro yaa ngi noonu di affiché ci barre écran bi lépp loo ci soxla rek comme information saa yoo wootee di nga jot alaaji euh, Youssou Ndour ginnaaw bi mu fi joteek euh, El Hadj yàggul dara Euh, tey bi ñu xëyee journal yi am na bu bind ni daal euh, groupe Futurs Médias dafay sàcc courant gannaaw ba rek bi ñu defee suñu ay gëstu ci li nga xam ne mooy rédaction yi nga xam ni moom la ñu yàlla booleel nee nañu daal euh, système bi xew léegi nga xam ne alaaji mën nga yor entreprise boo war a mën a lakk 5 millions ci weer wi ñu monter la benn benn compteur boo xam ne daal fukki junni ngay fay mu mel nag loolu bi mu amee ay jàngat yu bari mu ngi ci est ce que li ñuy jiiñ groupe Futurs Médias yëpp nekkul xëy na leneen la ay wujj yoo xam dañ koy sëlëm la wala jàpp nga lu war a mën a nekk waaw mais defe naa ni Senelec du wujjam euh, bu fekkente ni bi tuuma jóg na dal ci seen kaw ñu ne dañoo bokk ci ñi nga xamante ni bii dañuy def naka sudul noonu ci courant bi donc loolu ki ko tuumaal je pense que ni war nañ mën a am nañ ci li ñuy wax ay preuve yu war a mën a tax ñu daadee yëkkati ay tuuma teg ko ci kawam parce que groupe de presse yi bari nañ fi mhm. euh, te tudduñu kenn ñoom la ñu tudd ci mbir mi du ma ne nag Mm. dëgg-dëgg la journal ba bind dëgg la mm-hmm. que ni am na mm-hmm. parce que xibaar la boo xam ne mi ngay soog a wadd mm-hmm. waaye daal li am solo mooy bu fekkente ni ñoom ca seen jëmmi bopp mbir ma dal ca seen kaw ñu wax leen ko mu doon dëgg loolu moom gàcce gu rëy la gàcce ci naka ah non loolu gàcce mais bu dee am nga système ñu mën la wàññil économiser le courant bi kay loolu question que ba système système mu tappale loolu loolu loolu kuy joxe exemple waroo cee dugg mm. su fekkente ni bi lañ wax lu wér la te mu nekk dëgg mhm. vraiment ay sanction war na am parce que loolu jaaduwul parce que nag sooy bu dañoo nekk ci réew moo xamante ne bi li tardé réew mi yooyu la mhm. nga ñëw Senelec Senelec li muy moo tax parensaay yu bari Senelec du ko mën ñu mhm. ñaan lu tax lii lu tax lii fekk ne am na ñu bari li ñu war a fay mënuñu ko fay Mm-hmm. léegi nag ñu bari ñi nga xamante bii nag te tey yow moomu yow yaay def reportage ci yenn yi nga xam ne bii courant ba yeggu fa nga naan mm. leen naa ñii ah. liggéeyu fekk na yow la courant ba yegg yow ci nga comprendre nga c'est dafa am yoo xamante ne bii mooy freiné am réew mm-hmm. donc nit ki dafa war a nekk citoyen boo xam ne citoyen bu kii gis nga mm-hmm. cela ne veut diir dire que ni rek diw da koy def rek bon garaawut man it naa ko def te et puis am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni bu ma la sàccee yow hmm. sàcc la waaye bu ma sàccee ay Sénégal ak yooyu du sàcc ah, ah, ah. am na ñoo xam jàppewuñu loolu te alalu Sénégal ak alalu réew mi la mais da gis ñoo xamante ni bi dañuy defar seen kër ba noppi def ay branchement yoo xam ni teguwut fenn courant di lakk courant nu leen neexee nag te nag noppi nag dañ dootuñu sax économiser dëgg la yooyu fan la tegu dëgg la dafa am yoo xamante ni bi jaaduwut mm-hmm. te gis nga yooyu boo koy defit ña la ko defal te mm. sa jëm bopp ñoom ñoo lay yoole mm-hmm. la plupart ñoo lay yoole nga defee ne affaire yi secret da cee am yow mënoo defar courant bi yow mii tey bu ma la ko bu ñëwoon mm. bu ma ñëwoon proposé la ko maa la ko proposé mm-hmm. yow léegi proposé la ne nii ngay def ak nii nii mm. xam nga man léegi xam naa waaw léegi ka koy defar xam na keneen xam ëllëg si bu seen ne damay xam ni yéen la xew lañ mën a daje nga ciy patuma wala nga kii rek mën a am pourtant kii bi ñuy sàcc courant bi nii ak maa ko booleeg ñi ko koy defal mm. lu ne mën na am day am yeneen yoo xamante ni bi moo ci ne mais li am solo mooy sénégalais ak ku mën a doon nga fexe wàccoog sam réew bokk na ci nga jub tey jubal am na yoo xamante ni bii nga ciy dugg sony bu mhm. vraiment waroo bokk sax ci ñiy kaas kaas d'accord man de wax dëgg fa yàlla su ma doon sàcc courant mhm. wala may sàccum ndox mhm. di wut lu may tappale du ma toog sax naan maa ngi kaas yenn yi parce que damay xam ne man ak ñi ñooyam parce que sàcc laa ni ñoom c'est nit ki ci sa jëmi bopp yaa war a toogaat sa bopp yeddaat sa bopp xam ni def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw am loo xamante ne bii vraiment jaaduwul mi ngi noonu xam naa bëggoon mu développé moo tax waaye lii muy wax ñun am nañ ci tuuti expérience parce que mm. bu yàggul dara mm-hmm. man mii toog am na ku ñëwoon proposé ma lu mel noonu waaw ba mu ñëwee waxtaan ci ak yow mm-hmm. da nga ni ma bu ci dugg ndax yow mi toog di joxe ay leçon de morale mm-hmm. fii ak un an wala deux ans nit ñi mën nañ xam ne ndeke da ngay sàcc courant te su boobaa dootoo amati loo wax kon mu mel ni lu yaatu la ci réew mi itamit loolu nekk loo xamante ne bi lu doy waar la di vraiment daal Euh, bëgg sa réew bokk na ci nekk ci sa réew mhm. nangu dogal yi nga xamante ni bi réew ma teg na ko mhm. te moytu yenn yi bu fekkee ne courant bi dafa seer mhm. nit ñi nañu génn kaas daal di ñaxtu ne courant bi cher na mën nañu ko wax nañ fexe pour ñu wàññil ñu ko gouvernement bi jéem a góorgóorlu ñu def ki mais bu mu la dara jaral nga ne yaa koy saaj am na solo bu la ko dara jaral am na sama benn copain ndeysaan bu mës a jënd ki mooy compteur ak carte yi bi muy soog a démarrer mu jënd ko mais bosam bi li mu ci dugal marqué wut mais moom moo dem ba seen rek déclaré ko. Eh, eh. ne te mënoon na continuer di kii ah? si xam nga compteur boo xamante ni bii mënoon na continuer te lool. Mhm. mais moom moo dem ba sene eh, rek. déclaré ko si daal ne leen compteur bi affaire bi kii bi doxut parce que maa ngi loolu te affaire bi demut. loolu nga gis ni. kooku moom mbir la moo xamante ni bi voilà parti Pastef nag la bokk tamit. Ah <laughs> macha allah la bokk wallaay wallaay ca parti ba la bokk billaay kooku patriote la ca parti ba la bokk parce que moom compteur am signalé wul mu dem waaw wallaay compteur ba signalé wul su ko neexoon mu toog di ñaw yaa ngi dégg te et puis tamit nekkul tamit si situation boo xam ne sax situation bu neex la parce que day am problème pour jënd courant kooku jàmbaar la mais ba mu amee lool moom moo jóg dem déclaré xam nga kooku du def lool alaaji sax xam ne kooku jar naa jox réew mi wallaay ba patriote la te <laughs> en tout cas daal Pastef la bokk kooku jar naa jox réew mi macha allah waaw yal na yàlla jàppale ko amiin amiin Euh, keneen kii fas yéene jàppalu ay nit Wally Ballago Seck ginnaaw bi mu daal euh, nekkee ci ay mbir yu baree bari yoo xam ne am na ñu bari ñu jokk jiiñ ko ni ko daal dafay defal promotion góor jigéen yi mhm. gannaaw ba mu sonnee ca wax ja nag génn nañ moom ak ay baayam yu ndaw nee nañ daal fas yéeneetuñu kenn ku jóg di taqal deram wala ngay teg ci deram bi mbir yooyu la ku ko def daañu la yóbbu ci yoon nga leeral mhm. gannaaw bi sax euh, dégg nañ ci ay xabaar ñu ni Abdou Karim Gueye xurum xaq ak moom Makhtar Sarr Oustaz mhm. jot nañ leen a convoqué pour ñu dem wuy ko Sarr moom leeralaat na nee na néewul góor jigéen la waaye day defal promotion góor jigéen yi. waaw mhm. xam nga li am solo. mooy baayam yu ndaw yooyu. balaa ñuy génn di wax ak pénc mi. Mhm. dañoo waroon a wéet ak seen doom ci ruq wax ak moom. baayam yu ndaw yi waaw. d'accord muy Kéba ak Assane dañ ko war a wax dëgg. Mhm. dañoo war a wax seen doom dëgg. parce que nekku fi moom dong. dafay nekk ki moroomam. buñ ko ci seppee at mu jot ñu joxañ ko. na xoolaat boppam. que nag yóbbu nit ñi ci yoon même bu fekkente ni yoon dafa daan ñi nga xamante ni bii ñoom nga teg foofu taxut askan wi nangu ni yoon doxal na yoon c'est que ndax yow ci sa conscience boo toogee di nga jàpp ni yaa ngi ci yoon parce que liñ lay tuumaal ne la da ngay defal promotion ñii est-ce que yow xool nga li xew ci say mbir depuis lool ah. ndax nit ñi dañ ko inventé waaw nit ñi sosuñu ko déedéet lu ñu gis la mu ne fàng uhuh. lii nit ñi gis nag mu ne fàng ñu wax ko boo bëggee loolu dañ bàyyi li ngay def te ne ci leneen. donc papaam yooyu. pour ñu nekk vrai ay père dëgg-dëgg. nañ bañ a xool alal. te xool lii dëgg. ñu di ko ko wax wéet seen doom ci roq daal. waaw wéet ak moom wax ak moom. parce que ñoom ñu yàgg nañ fi te kenn leen ko wax way nañ lu ne. taxaw nañ fu ne di tëgg. kenn musu leen koo wax. dëgg la kon bu ñu koy wax seen doom nag nañ xoolaat seen doom yoon wi waaw. donc loolu la quoi. léegi ndax jàppoo nii dina am lu mu wàññi ci carrière Wally wala. waaw xam nga bon ndax di jàpp ay nit di yóbbu ci yoon ak yooyu. ñu ni jël na pôle d' avocat ce que jàppoo ni mën na kii ci Wally. waaw noo c' dañu jàpp ne bon dañu jàpp ne mën nañu xoqatal nit ñi. Hmm. defe naa ni euh, loolu moom bu yeboo ñu teer teg ko ci suuf te xam ni loolu mënta ne. Hmm. xoqatal nit ñi mënta ne. Hmm. am réew boo ci nekkee jàpp naa ni ñooñu muy wax. Euh, ñu ko ñu ko bëgg lañ. parce que bëgg ko moo tax ñu orienté ko teg jéem ko teg ci yoon. d'accord que ni Karim Gueye que ni oustaz ba lañ koy wax noonu. loolu mooy li mu war a dégg loolooy dëgg. donc lii gën mooy mu mu jéem a déglu ñooñu. d'accord nag àddina. dañ fi ne pour defar suñu ëllëg mhm. te ñun ñëpp dañuy dem mhm. te ëllëg nag mhm. foofu alal jariñu fa dara la fay jariñ dara nag fii nga koy liggéeyee donc nag am na loo xamante ne bi moom vraiment na xam ni fi mu toll tey sénégale yu bari bëgg ko xale yu bari bëgg ko di ko topp exemple la pour mu teg ndaw ñi ci yoon woo xam ne siraatal mustaqim la donc man dama jàpp ni lii daf ko war a jël def ko loo xamante ne bi dina ko permetre ñi ko naan mm. yaa ngi xirtal nit ñi pour ñu jëm ci ngóor jigéen mm. comme que dem na ba am influence bu doy noonu ci am réew mm-hmm. na ne ah kon nag naa jéem a xirtal nit ñi ngir ñu jublu ci yoon bu baax comme que man yàlla may na ma loolu loolu de wallahi bu ko defee dana ci am lu mu bëgg ci àddina te coow du ji te bu référence lay doon donc loolu mooy li nga xam ne moo ko war am na solo parce que leen li laa la ji jeexal nañu tàkk-tàkk tey kon seen boutique solution lii la indi woon euh, muy daal ñetti eh, jàngoro muy hémorroïde siti ak kàttan ñu joxante xam naa dig daje ba beneen yoon incha allah ci kàttanu borom bi jërëjëf Ablaye Diallo moo nekkoon ci caméra bi même temps moo doon monter élément yi jërë ngeen jëf ba beneen yoon. jaaxle jeex na solution judd na ji Alaaji Sanjogu Mbeng soxay bu Jóob taxawal boutique solution taxawal nag bala ngaa dem boutique solution ñetti jàngoro nag lay faj Sanjogu Mbeng yan jàngoro la mu ni ma néew kattan hémorroïde ak ndoxum siti ñoo ngi ceeg ay garab yu doy waar garab yoo xam ni fépp fu ñu fekk jàngoro toxal ko garab yaa efficace de yow mi am jafe-jafe sëy di teel a daanu wala sax sa sàkkara du dëgër dawal seet si boutique solution hémorroïde bii génn ak sax bii ne ci biir foo toog sa biir bi naan góor dawal seet si waa boutique solution ndoxum siti jaaxle jeex na envoyé sa xaalis jotatoo say garab jeex na envoyé sa xaalis kenn dootu la jël téléphone jeex na envoyé xaalis ñu lay dawloo jeex na ak seen boutique solution dafa ñëw ngir régler situation yi mboolem réew moo mën di nekk defal sa commande garab yi daañu la fekk fa nga nekk ngeen mën a jokkoo ak boutique solution ci 78 426 66 77 mbokk yi jaaxle jeex na solution juddu na su ngeen bëggee dégg dëgg daal fii kese ngeen di wéree